bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin mbokk yi asalaamualeykum wa barakaatu eh, noo amaan mbégte di fas yéene ay kàddu ginnaaw bu ñu siyaaree sëriñ Mor xalifa maam Cheikh siyaare sëriñ Jiili Abdou Khadir xalifa sëriñ Modou Mamoun siyaare sëriñ Abo ibnu Cheikh Mouhamadul Mamoun ñaanal leen suñ borom may leen fanu gudd ànd ak wér-gu-yaram te defal ko sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha noo ngi siyaar bu baax sëriñ Baara Touré xalifab sëriñ Mor Fati ture ak sëriñ Omar Touré ak mbooleem njabootu sëriñ moor Fati Touré gépp di beral ab siyaar mbooleem ax faati alaaji Mor Faati Ture yëpp eh, bëgg ñëw rek ak ay kàddu tuuti ci alaaji Mor Faati ginnaaw bu ñu xamlee mooy kan moom mi nga xam ne eh, ci wàll ci askanu maam hmm, bu ñu dee seet ci njabootu Mame Balla Aïssa Mame Balla Aïssa wala ñu seet ci sëti sëñ Mor Anta Sali yi sëti sëñ Mor Anta Sali ñi ciy mag sëñ Mor Faati du bari sëti sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ndax xam naa ne juróom di soxna Faati Anta day day taawu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali hmm. moo tax nga xam ne kon laaj Mor Faati ci sëti sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ci ñi ci mag la bokk ci ñi ci mag la bokk suñ borom it dimbale ko uh, ci wayjur yu baax te moo di uh, soxna Faati Anta moomu nga xam ne mook maam Cheikh ñoo bokk ndey ak baay bokk ak sëñ Mbàkke Anta ak soxna Anta Sali yàlla daa dogal sëñ moom sëñ Mor bu ko dee xool moo mag lu bari ci njabootuk sëñ Momar Jaara gi moo leen mag waaye lu bari ci njabootuk sëriñ Tubaa gi wala ñëpp sax ñu ëpp ci njabootu sëriñ Tubaa gi ñëpp moo leen mag moo tax ma wax ne ci sët yi sëti sëñ Mbàkke Mor Anta Sali ñi ko ci mag bariwut ci ñi ci mag daal la bokk loolu mooy tegtale rek na mag la mooy tegtale mag la daal mu doon koo xam ne daaray tërbiyee sëriñ Tuubaa ji ginnaaw bu sëñ bi ñëwee Daaru Salaam ba Cheikh Ibrahima Fall am ngërëmul yàlla alaaj Mor Faati Touré moo wóotu Cheikh Ibra ci daaray tërbiyee daaray tërbiyee ji seex Ibra yoroon alaaj Mor Fall Touré moo ko fa wuutu ci ak bi ginnaaw bu sëriñ bi demee ci géej gi nga xam ne ci la acteur bi noppi mu boole ko maam Cheikh ci la soog a dugg ci njàngoom xam-xamam fekkoon na moom njàngoom alxuraanam duggoon na ci waaye tër dafa wuti ngërëmul yàlla ba am ko soo a jàngi xam-xam bokk na ci ay kiimaanam moom alaaji Mor Faati daanañ wax ne daana def ab ñàkk ab ab làkk loolu sëñ Cheikh Touré Madina moom ko nettali daana def na def ab ñàkk ne ci biir ñàkk bi di jàng ngir ittewoo gum ittewoo positif bi nga wax yàlla jox bi mu ittewoo xam-xam ak jàng ngir bu gëmmentoo su jayaxoo dal ci ñàkk bi dégg jam ko mu yeewu ngir mën a kon ne am njàngam yilif na ay dongo itam ñu ne ci biir waar wi di xëye ko wàcc ba noppi bu ñu xëyee di wut ngërëmam te bu wàccee ñëw ci moom tëralal ko xam-xam kon kenn mosu koo gis ku dul sëñ Tuubaa moom alaaj Mor Faati mu nekkoon boroom xam-xam bu mag doon doonoon jaamukatub yàlla boo xam ne Moustapha ya Sariya bu bokkut ci li nga xam ne dana ko caaxaane ku amut diine sëñ Mor Faati du amante ak waaye boo ko dee xal ci wàllu taalibe da nga naan dafa nuru Cheikh Ibra nga ne kon dafa boole woon Sariya bi ak xaqiiqa bi dund ko dund gu Euh, kero bi euh, kero bi kero bi kero bi maam Cheikh Anta jaayante ginnaaw sëñ Mbàkke Mor Anta Sëli bi muy jaayante bi mu wooyee sëñ Afe moom moom mu li mu doon tuut tuut tànk jëli nañ ko dafa bokk ci ñu jaayante moo lay xamal ne mag la kon lay xamal ne mag la jaayante na ginnaaw sëñ Mbàkke Mor Anta Sëli ak sëñ Touba ndax maam Cheikh Anta la la boole rek yët sëñ Touba ñu jaayante moom Euh, dëkkam bii mu sanc tuddee ko madinatul munawara sëñ tubaa it boole woon ko ak maam Cheikh waaye liggéeyal na sëñ tubaa nag ci daara yi ndax waxtu wi Cheikh Ibra Fall day am ngërëmul yàlla da sëriñ dafa wax ne ñi nekkoon daaree daaru salaam nañ tuxu dem tubaa booba sëñ Mor Faati mi ngi ci daaree yi salaam sëñ tubaa ne ña nekkoon ci daaree tubaa nañ tuxu ñëw daaru salaam ña nekkoon ca daaray Touba ñoo tuxu ñëw daaru salaam waaw astafurlah sëñ Mor Fati dafa bokkoon ci ñu nekk daaray Touba sëñ Touba gërëm Cheikh Ibra ba noppi ne ñu nekkoon ci daaray daaru salaam nañ dem Touba ña nekkoon ca daaray Touba nag ñëw daaru salaam sëñ Mor Fati bokkoon na ci ñi nekkoon daaray Touba dafa ànd ak ñoom ñëw daaru salaam ban ñëwee nag ci la sëñ Touba laajoon maam Cheikh Anta na ko li jógee Touba fanaan si daaru salaam ñaata la mun ne ko juróom-ñeent fukk lañ ak juróom-ñeent nee na sëriñ bi ne ko demal ca daara ja mottali leen téeméer boobu borom gaaw a nee ne damaa defe ne dañ may delloo wat ci daaray tarbiya ndax Seex Ibra am na ngërëmul yàlla te sëñ bi tuxal na daaray Touba ji indi leen Daaru Salaam foofu daaray Daaru Salaam ji yóbbu Touba nee na ba ma fanaanee ba bët set mu ne ma seex mu ne ko mbàkke mun ne ma dëkk bi ak daara ji rafaatale naa la ko boobu nag sëñ Mor Faturé ngi ci biir daara ji waaw sëñ Mor Faturé moo wuutu Cheikh Ibra ci daaray Daaru Salaam ci ak tarbiya loolu loolu loolu leer na kon dafa tarbiyewu sëñ Touba ba am ngërëmam laata sëñ Touba dem ci géej gi mosu ko kon ne aliway xam àggale ji ko euh, doono nit koo xam ne ku ku taxoo woon ak Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh Anta la ku ko jege woon la lu ëpp ci taxawaay lu bari ci loxo El Hadj Mor Fatou la ko sëñ sëñ gaawaan ba ci organisation sëñ gaawaan mbooleem seex yi aju woon ci kër gi ñoom ñëpp ci loxoy sëñ Mor Fatou lañ tege woon ñoom ñëpp seex si aju woon ci kër borom gaawaan juróom-ñett fukki seex yooyu ngay dégg wala juróom-ñeent fukk ak nangam yooyu ngay dégg yëpp ci loxo yi alaaji Mor Faati lañ lañ lañ tege woon moo nekkoon seen jëwriñ buñ li ndigal lu mas di ñëw ci borom gaawaan ci ñoom lay jaar mu organiser leen ko ñu xam nañ nañ koy réglé eh, lu wàllu ci wàllu finance ci wàllu finance lu sëñ moo sëñ gaawaan daan dimbalee nit ñu bari rawatina ci wàllu niti adduna yi politiciens yi wàllu commerçant yi wàllu ñu daan jëflante ci wàllu opérateur économique yi ci wàllu njëndum gerte ak jaay ko yooyu yëpp ci loxoy sëñ Mor Faati Touré la nekkoon pont de traite yëpp sëñ Mor moo leen daan financé maanaam mën nañoo wax ne ne moo doon loxol ndi jooru boroom gaawaan daanaka sëñ gaawaan daawut def dara lu jëm ci wàllu xaalis ca sëñ Mor Fati ñëwut ba noppi waaw bi muy bi muy dem Màkka sax alaaj Mor Fati la fi bàyyi la fi bàyyi nga xam ne gis nga bi sëñ gaawaan waaje yoon Màkkaam woowu ba dajale xaalisam ak lépp mu bay dem dafa woo sëñ Mor Fati mu ñëw mu ne ko nañ la bàyyil nangam ci xaalis ndax maanaam ñi war a nekk ñi ñu war a dimbale sama ginnaaw fii may dem màkk ba ñëw ak ñi nga xam ne dañoo waroon a yor seeni dépense ak li nga xam ne moom la waroon a dimbalee ngëlandu ci juróom fukki junni yooyu nga xam ne moom la ko joxoon ci wàllu xaalis yooyu yëpp ci loxoy sëñ moor Fati la nekkoon. nga boo doon xool ci wàllu archive yi gis leetar yu bari bari yoo xam ne El Hadj Mor mooy ne ca bopp ndax sëñ Tuubaa sax daana soxla ci borom gaawaan day yónnee ci sëñ Mor Fati directement. day yónnee ci mbindi sëñ Tuubaa yu bari yoo xam ne lettre yi day def directement ci Alaaji Mor Fati mu wax ko ay yitte yoo xam ne borom gaawaan ay tax mu di ko ko wax eh, ci Alaaji Mor Fati da koy faj ba noppi ñëw ci borom borom borom gaawaan na ko ku baax ki yónnee woon na nangam ak nangam def naa ko loolu loolu Alaaji Mor Fati liggéey na ci liggéey bu rëy rëy diggante sëñ Tuubaa ak ak ak ak borom gaawaan liggéey diggante sëñ Tuubaa ak ay bokkam ci tarixa bi kër yu bari boo gisee sëñ Mor yi ubbeeku woon eh, ñëpp ñi mu bokkal askanu maam maharam ñëpp di ay bokkam waaye rawatina njabootu sëñ Mbàkke Mor Anta Sali gi nga xam ne ñoom ñëpp ay nijaayam lañ la ko tàmbalee ci kër sañ Mor Jaara ba ba ngay ñëw ci kër sëñ Masamba ñëpp ay nijaay sëñ Mor Faati lañ ndax ñoom maam seexantaa Anta bokk bàyyi eh, kon ay nij ay kër nijaayam rek lañu woon waaye teewut seen kër yooyu noonu la ci alaaji Mor Faati meloon ndax soxna Faati Anta dañ ko bàyyi woon xel lool tamit doonoon nekkoon jigéen joo xam ne ju jàmbaare woon ñu bari woon teraanga la waaye ju mën a dimbalee lañ Mor Fati taxawaay yu mel noonu amoon na ko ci diggam ak borom gaawaan li ci mujj rek nga xam ne alaaj Mor Fati def na ko mooy talaata ji sëñ Afe mujj ci àdduna fajarub talaata googu bi muy julli suba ñaar ay suba yi sujjoot sujjoot bu mujj ba waree siggi sëlmal foofu la demee àjjana sëlmal boobu alaaj Mor Fati moo ko def toppatoo sëñ yóbbu ko Touba ñu denc ko sëñ Modou Farmata ñëw mu taxawu ko waaye teewut ci àllarba ji ci guddi gi nijaayam sëñ gaawaan it wàcc ab liggéey moom it moo ko toppatoo sang ko gillee ko denc ko ci Daaru Salaam taxawuwaat sëñ Modou Mamoun mi nga xam ne kon sëñ Modou Mamoun ak sëñ Modou Farmata ñëpp sëñ Modou Faat taxawulee ndax mooy seen mag booba te dañoo bokk lépp kon gis nga ne taxawaayam bi noonu la ko yaatoo yaatoo woon nag ci mboolem bunt kër yi sëñ Mbàkke moor Anta Sali kon El Hadj Mor Fati ko amoon ab taxawaay la bi sëñ Gaawaan di dem Màkka 1928 da ko fay bàyyi bi mu ñëwee 1929 wala 30 El Hadj Mor Fati dem dem Màkka nga xam ne ci la sëñ Gaawaan bindee lettre boobu boole koog Burxaan nga xam ne El Hadj Mor Fati bi mu demee ba àgg Màkka sax waxal na boppam ne boroom Gaawaan de yi xam naa ne li mu li mu dépensé ci xaalis ci Màkka jéggi na dayoo ndax man de fu ab naar nekk naar boo xam ne kilifa nga ñëw nga fekk ma ci sama dal na ma yow yaay doomi borom gaawaan mu ne waaw mu ne ma kon gaawal ci suñ dimbal ndax sa sa baay wala sa nijaay bi mu fi nekkee dañ doon dimbale nga xam ne loolu sax demoon na ba alaaj Mor Fati li mu yóbbu woon ci argent de poche naroon a manqué ndax eh, wóotu gaynde ku wóotu mburu ci taal ba xam ne mburu jàmbaar la eh, loolu mooy taxawaayu alaaj Mor Fati ci ak gàttal kon eh, ñoo ngi sant mbokk yi di santaat sëñ Cheikhouna naature bu baax a baax a baax di xam ne yéen a ngi def ab liggéey ci koo xam ne eh, yaakaar naa ne mat naa waxtaane waat ndax lu bari ci àdduna xamuñu ko moom muy alaaji Mor Fati ture Madina eh, eh, jiite na ci liggéey borom gaan yu baree baree baree baree baree bëri yoo xam ne moom moom moom moo ko daan taxawe ku riis ak dund la la ku ku ku ku ku dundoon charia la waaye ku jeexoon takk ci ak taalibe koo xam ne ku gëmoon sëñ Tuubaa ñoo ngi ñaan yàlla nañ ko yàlla fayal Euh, te fayal ñu taawam bu baax ba sëriñ Cheikh Touré euh, fayal ñu sëtam bu baax ba sëriñ Cheikhouna ture te yàggal fi sëriñ Mouhamadou Lamine di sëñ Baara ak sëñ Omar ak mboolem mbokk yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.